arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Pape Ndoye ak ko doon ko wax Balla Gaye moo ñu féetee à droite moo ñu féetee à gauche xale yaa ngi noonu ci digg géew bi bàyyi jili Ousseyn ñoom ñaar a ngi noonu ci digg géew bi Pape Ndoye jiital tànk càmmoñ Takhé jiital tànk ndejoor ñoom ñaar ku ci nekk dafa am loo xamante ni war nga ko mën a def ci làmb Pape Ndoye daa duggoon Langsar am ndam ci kaw Abu Ñaase duggaat Langsar taqe na ko boo njëkkee woon ci man doo laal keneen ñuy xool ba xam taqe day freiné Pape Ndoye wala Pape Ndoye day continuer di dugg bi Langsar Ousseyn. taqe taqe moom ba mu fi mujjee fee ci arène nationale Boy Pouy la mujjee daan. da koo dóor mu daanu Ousseyn da koo door mu daanu digganteem ak Boy Pouy Pape Ndoye baam bi weesu moom it daf cee am ndam digganteem ak Abou Niasse mooy comme li ma wax waaye en tout cas ñoom ñaar ku ci nekk kii Fass la jugee Père Ibrahima Mbaye ko indi kee Langsar la jugee ki ko indi ndeysaan mooy ki nga xamante ni mooy Père Max Mbargane ah gars yi daal xam naa ne ñu ngi dugg ci làmb ji naan mbëri gisuñu wala arbitre yi gisuñu waaye projecteur yi yaakaar naa terewul gis kenn wax dëgg ci yàlla. xale yaa ngi noonu ci digg géew bi ku ci nekk yaa ngi ne tekk waaye li ma ci jaaxal taxawaay bi ku ci nekk da ngaa sigi taxaw ne jonn Pape Ndoye ngi taxaw di ko lii ci biir bët taxee ngi koy xool Pape Ndoye mépp na léegi waaye demul. ñu ngay lewaatoo di xoolante ñoom ñaar te xel lewaatoo na ba mu neex ko mu dagg ko mais bàyyi jiili su ma doon xool arbitre bi waat na leen ci diggi géew bi arbitre baa ngi leen woo bërewu leen loolu la leen di wax moo ngi wax ak ñaari mbëri arbitre bi sëb la waat na jege yaantoo nañ bàyyi jiili su ma doon laaj taxe ak Pape Ndoye ku ci ñoom ñaar ku ci nekk lan mooy sa avantage loo may wax. Ousseyn avantage su Pape Ndoye ci combat bi dama koo gisul ndax daa mel ne da nara nar a bàyyi avantage am mooy bu arbitre prime rek nga agressé sa takk. li mu daan wax dóor ko dóor ko ko dox ci kawam xeex ak moom. taxe nag nii muy bëree actuellement mooy combat mooy su ma ko doon digal dama naan ko taxawal toog say tànk déglu Pape Ndoye lu mu indi nga jàppante moom bëre. mais Pape Ndoye actuellement su ma ko yeboon indi ko dama naan ko doxal ci kaw taqe xeex ak moom ndax lamb chaque fois Ousseyn xeex dafa am ku mu arrangé. bëre daa am ku mu arrangé ndax loolu mooy làmb ñii dañuy mën a bëre mën a xeex ñii mën a xeex mën a bëre ñii mën xeex te duñ mën bëre ñii mën bëre te duñ mën xeex te loolu mooy làmb fi mu toll nii. kon su ma déggee wax ji mooy Pape Ndoye lii muy def nii du avantage bi ci làmb ji. déedéet du avantage am ci làmb ndax avantage am moo doon arbitre na prip mu dox ci kaw taqe xeex ak moom waaye gis nga taqe fi mu toll nii bis bi lu muy diis diis wanewul ni bis bi daa diis ci moom da koo téye rek di déglu Pape Ndoye taxe fi mu toll nii nag actuellement bi yi lay déglu ba xam day saax saaxe Pape Ndoye wala Pape Ndoye day saax saaxe taxe waaye ñoom ñaar ñu ngi déglu rek gis nga. taxe da koo bëgg a jeexal. loolu nag du avantage du taxe ndax bu dawee jëli Pape Ndoye te gisul Pape Ndoye mun naa am jël bu ko bett gis nga. gis nga ñoom ñaar fi mu toll nii xeex bi dina commencé waaye Pape Ndoye daa teey te teey boobu ci taxe lañ ko waroon séntu waaye taxe fi mu toll nii gis nga li muy bëre yëpp mu ngi liir bi mu ngi xool Pape Ndoye fan la ko mën a jaar waaye picc nga ca kaw xel maa ngi ci suuf Pape Ndoye lii sama xel est-ce que du ci tànk yi la jëm ca tànk yi la jëm looloo avantage am ci lamb Ndoye tôt ou ci tànk takk yi la jëm waaye buy dem lam fay fekk ak buy dem nan lay demee lool laay laajte man waaw mun naa dóor rek daw ñëw moom Pape Ndoye taxe tamit bu séenee Pape Ndoye buy daw di ñëw mun naa daw jëli tànk bi mais gis nga lu mën a xew mooy Pape Ndoye daa bëgg a cokkaas taqe taqe ne su doon maay moom du ma xaar ba Pape Ndoye indi ma teggi waaye li mu war a def mooy fermer tànkam wàcc ci tànk yi aj garde bi ci kawam di xaar lu Pape Ndoye door nga faxas lu mu door nga faxas ndax Pape Ndoye bëreetam neexut a téye Ousseyn. booy xool kii di eh, Pape Ndoye dóor na léegi takke ku bu daal boo bokk na ci li ko wàññi waaye takke ta defar na taxawaayam moo ngi dox ci kaw Pape Ndoye waaye loo ci man a wax ba waxo ci daal mooy bés bu Pape ndooy di dem na xam na muy demee ndax takke daa diis su demee te jàppul wala mu dem te dugg bi baaxul eh, yaakaar naa ne. bés bu taqe wàccee ci kawam leneen la ñuy wax baa ji. leneen la ñuy wax parce que Ouzin taqe dafa diis te Pape Ndoye moo gën a nekk poids léger te Pape Ndoye tamit moo gën a mobile gis nga lu ma la waxoon day xeex mais xeex bi yëpp da xam fi nga jëm taqe ngay dóor xeex bi yëpp laa ma ji dinañ xeex mais bu doon maay taqe dinaa def ndànk ndax na muy xeexee actuellement dina baax ci moom waaye Pape Ndoye moo bàyyi yoonam ndax dafa waroon agressé taqe warul woon xaar taqe ko woo ci xeex. moom moo waroon woo Takké ci xeex waaye waru woon xaar Takké di ko woo ci xeex Ousseyn. waru woon woo waru woon woo Takké ci xeex mais boo xoolee ni Pape Ndoye di bëree baaxul ndax kii di Takké day am confiance daa fàtte angle yi dox ci kawam Pape Ndoye amatul chance li mën a def mooy gos droite déplacé wu gos droite déplacé wu na fexe nag ba buy dóor na dóor kuy daal arbitre bi àtte na. waaw Pape Ndoye day jël avertissement ndax Takké mooy dox ci kawam. waaye day jël avertissement benn ndax Takké mooy dox ci kawam. waaye loolu jeexalu làmb ji Ousseyn ndax Pape Ndoye fi mu toll nii actuellement daa woon taq nii dama laa ragal te ragaluma la Pape Ndoye daa woon ni taq ni damaa duggoon Langsar am fandam ndam yéen a soxla ndam li waaye man soxlawu ma ndam Langsar léegi moo tax taq fi mu toll nii Pape Ndoye koo bàyyi combat bi bu taq bi ngay ñëw mu aju bu bëggee ñëw mu aju aju boobu na bu yàggee ci taq day dem ba day énervé wu day mer te bu meree mun naa dox ci kaw Pape Ndoye dox boo xam ne du ko arrangé mais lu mën a xew mooy Pape Ndoye actuellement li ñu doon séntu ci moom étape bi njëkk bi mooy xeex bi ñu doon xaar ni Pape Ndoye war na koo indi Pape Ndoye indiwu ko gisuñu ko ci moom xaw ma nag ba xam dañ ko ko yabee xaw ma ba xam déet day xaar ba ci kanam waaye en tout cas lu mën a xew mooy combat bi njott nañ ni war naa mën a am xeex war naa mën a am bëre Pape Ndoye décidé na Ouzin teg na tànk bi taxaw. Pape Ndoye décidé na eh taxa door na ko kuumu daal eh eh Pape Ndoye taxee ñoo ngay xeex dina ko door ba doomu daanu du ci ma ngay dóor uppercut moom taqee uppercut bi muy dóor Pape Ndoye dal na waaye Pape Ndoye gis nga li ma la doon wax Pape Ndoye warul bàyyi loolu ma ngay fayu ndax ñoom ñaar ku ci nekk xeex dafa am nu mu arrangé sa morom Pape Ndoye nag ni mu toll ni Ousseyn doole ji ëpp na noonu boo gisee macha allah cuisse bi ni mu toll ak ni mu toll nga xam ni doole ji ëpp na loolu est ce que taqe moo ëpp doole Pape Ndoye est ce que Pape Ndoye day aspiré taqe ba mu jeex mu bëreeg moom mais en tout cas ñoom ñaar ku ci nekk jàpp na ci ngemb Ousseyn. ku ci nekk jàpp nga ci ngemb waaye ni ma gisee Pape Ndoye taxawee taxa taxawee ko baaxul ñaari tànk yi mu tajale bu ko bu ko Pape Ndoye waxee gis nga la ma la doon wax Pape Ndoye taxa ne mu taxawee baaxul te mbër buy taxaw day écarté ay tànkam mais gis nga écarté na ko dafa mel ni dafa dégg la may wax. Pape Ndoye taxawee da koy dégg Ousseyn mais écartement. Pape Ndoye euh, taqe nii mu écarté du noonu la ñuy écarté booy écarté sa benn tànk day jiitu beneen bi nekk ci ginnaaw bu boo bu loo caxabalee nga am équilibre mais nii bu Pape Ndoye jékki-jékkoo liir ko daw caxabal ko bu reculer rek day toog danaan detter toog Pape Ndoye nag nii mu def benn tànk bi benn bi devant benn bi derrière baax na parce que mbër noonu lay taxawee mais en tout cas lu mën a xew mooy ñoom ñaar fi mu toll ni taqe jàpp na mu ngi liir mu ngi déglu xaw ma lan lay togg waaye Pape Ndoye tamit am na lu mu bëgg ba xam taqe ko koy may wala taqe day may Pape Ndoye en tout cas lu mën a xam mooy combat bi li ñu yaakaaroon bu arbitre ne dina gaaw ba léegi gaawagul ci ñoom ñaari xale yi gaawagul ci taqe gaawagul ci pam Ndoye gaawagul sax ci reporteru làmb yi gaawagul ci kenn moo tax xale yaa ngi noonu ci géew bi taqe ngay dóor Pape Ndoye jàpp na da koo bëgg a zongale wala lu mu ko bëgg a def waaye loo ci mën a xam-xam ba xam-xam oh Pape Ndoye taqe wéere taqe Pape Ndoye dafa mel ni ku bëgg a zongale taxee mais est-ce que loolu mën naa nekk. zongale fort na. Eh, daan na ko Pape Ndoye. Pape Ndoye daan na naa ko. Pape Ndoye daan na taxee tànk yemu tegle. yoon Pape Ndoye taxabal na ko. la doon wax. newoon naa la. bu la caxabalee ni nga taxawee baaxul benn tànk bi jiituwul beneen tànk bi bu la caxabalee rek Ousseyn da nga naan derteer jaaxaan Pape Ndoye def na lecture boobu liir na combat daan na tax a jël bu amul benn werante loolu mooy lamb. oh Pape Ndoye fan la jëm fan la jëm bi Lansar. su doon maa moom du ma génn bi dama fay des fa ba tey. kan la fay bëreel Ousseyn kan moo fay bëree. kan mooy ñëw est-ce que Coly Faye numéro 2 du ñëw. ba tey mën naa nekk. gis nga Maama Lamine du ñëw. mu kan moo ko war a feree de lang sax. en tout cas ngi def semaine. xale Fass baa ngi noonu. wane waat na bopp. si taa ngi noonu.